jaarale ko ci yoon ñu def li ñu war a def et puis gañ ndam li yenn sax ñàkk gëm yàlla la parce que boo xamee ne yow bu teyee nga gagné mais jàppal ne bu subaa tam mun nañ la gagné mais dara kenn sàccu fi dara ndax euh, pouvoir bi am na leneen lu mu tal lu dul toog fi di jël ay élection di ko di ko nju njaaj suñ ko gagné woon tam daf koy nangu mais fii sàcc amu fi guddi njuuj njaaj amu fi dañu gagné et dañu gagné largement vraiment dañu war a gëm yàlla xam ne fii bennoo moo fi gañee vraiment sàcc amu fi ñu xam ne li yàlla moo ko dogal parce que soo seetloo bennoo fépp fi nga xam ne fii dañ ko fa dóor daf ko nangu te boolewu ci wax mais ñoom tamit fi bennoo gagné nañ ko nangu que yàlla moom moom dëgg te yàlla ku ànd ku am dëgg rek la àndal kon man maa ngi leen di woo ci ñu ñu wuyu jàmm mooy opposition bi yëpp ñi ne ñi ne ñi ne duñu nangu li li yàlla dogal nañu xam ne ne yàlla mooy jox ndam xëy na tey bennoo la suba tamit day nekkaat bennoo nag parce que ku ràcc jëmale sa boor rek mu dëll waaye bés dina ñëw dina doon ñoom nañ ko nangu caravane yee wax yeeg lépp parce que gagné nañu gagné nañu te yaakaar naa ne partie au pouvoir bi du gagné ba pare di bàyyi keneen di ko foqas ci loxoom waaw nañu delloo si waat seen xel te xam ne fii yàlla fi ne te xam ne fii président Macky Sall moo fi ne Boun Abdallah Dionne moo fi ne nañ ko nangu ñu accompagner leen ci seen liggéey dalal leen may leen jàmm Sénégal nañu bàyyi ku jóg taxaw ñu puus ta nga dem kooku du defar réew nañ ko bàyyi mu yeggali ak sagoom su paree keneen jël àddina noonu lay doxee ndam bi nga wax ne que Dakar parti au pouvoir jël na ko te gëj na fi am loolu moo lay won na ne président Macky Sall boolewul dara ak wax mu ngi liggéey comme nag mu ngi liggéey te xam ne dakaar dafa ja dafa sature te fexe na ba teg ci loxoom nañ ko ko nangul te xam na ne que fii dëgg rek a fi ne

presse bi wax ne dinaa ko battre même ci bureau de votam yaakaar naa ne man am naa cent quatre-vingt ci biir bureau de votam moom mu am fa trois voix kon defe naa ne man li ma wax fi ma ko wax dafa leer nañu ACT maa fa nekkoon maa fa nekkoon lion bi maa fa nekkoon champion bi maa ko defar maa ko taxawal maa fay benn jigéen bi te gis ngeen ne Si xool élection yi nu mu demee li Abdoul Mbaye am résultat nga xam